Thank you. li ko tax a mooy may leen ñu may leen ñu ak dégloo tuuti ñu def introduction bi. Euh, Cheikh Alassane Sène defe naa jaratul ma leen koy présenté parce que yëpp xam nañ ci réew mi waaye damay leeral rek dafa am loo xam ne dafa leeragul ci bopp gépp ba léegi ñu bëri dañuy dégg ne mos na def kaso effectivement mos nañ ko tëj kaso un an et de prison waaw dinaa damay damay ñëw rek. de manière ramassée ci lan moo taxoon ñu tëj ko kaso bu ngeen rappelé au mois d' octobre deux quinze ñëpp ñu ngi fàttali ko fii Charlie Hebdo bi nga xam ne bi ñu caricaturé yonent bi ci France nga xam ne ba les frères Kouachi xëyee def loolu ñu fa def euh, président de la république Macky Sall dama koy tudd ak IBK dañu xëy dem ba France taxaw ci wetu Hollande di défiler sur les Champs-Élysées sol ay t-shirt bind ci je Charlie bi ñu ñibbisee mu ñaawlu ko avec la plus grande énergie bi mu leen ko waxee ñu jàpp ko tëj ko kaso lii moo waral kaso lii ku leen laajati lan moo waral ñu tëj da ngeen ko lan li Macky Sall demee France ñëw daf ko ñaawlu bind ko alors ñu jàpp ko tëj ko si un an et demi démb bi ñu demee Ouro Sogui euh, Thierno Aliou Thiam nee ko yow loolu ñun nga ko defaloon mais xamuñu ne loolu moo dugal mais lii nga ñu yàlla aussi def bu mu fa duggee mu profité ci bind ci yonent bi benn livre bu 4000 pages soo duggee ci saalam moom moo nekk ci kaw table euh, kon loolu dafay wane engagement bi mu am politique taxu ko jóg mus naa ko seeti kaso mus naa ko seeti kaso benn jeudi ñu toog mu ne ma bu naan est-ce que xam génnee damay nekk candidat mais bi ma ko waxee ma dama xool miiru prison bi mu day te moom génn gu fa je veux seulement dire benn conviction am ko courage ak détermination la ciy tant que tant que tant que yeggale ko tant que ko du arrêté léegi ñu ñëw ci lii ñu jógal coalition naataange benn coalition la boo xam ne dafa taxaw parce que élection yi ñu jëm le 31 juillet mooy unique occasion bu ñu am benn yoon par cinq pour mën a prononcer wu ci ni législature bi ñu doxee ci dëkk bi la première fois ñu am benn occasion bu ñu voté le 31 juillet bii 31 juillet 2000 2000 2000 2027 ci la prononcé wu waat ci xeetu loi bu bon bu ñu fi mën a dugal te dañu am occasion à partir du 2 août à partir du 2 boo xam ne c'est discutable bu ñu tegoon fii ci Sénégal ñu mën ko dindi à travers une nouvelle majorité qui va se dégager au sein de l'Assemblée nationale. donc mu nekk gouvernement boo xam ne bu ñu nekkee majoritaire ou bien avec le jeu des des coalitions mais ñu fexe ba Macky Sall yooyu ñu taxawal un gouvernement bi ñoo boo xam ne le 2 août. Macky Sall dafay convoqué le chef de la coalition gagnante ne ko je veux que tu me du nouveau premier ministre su boobaa lenn kese lañ koy bàyyi la politique étrangère et la défense bu ko defee bu ko defee a bu bees bu ko defee léegi moom dafay jël li li mbër yi di wax quatre appuis benn léegi bu ko defee le le le le vingt quatre juillet dañ koy bëgg wax rek mu daanu te projet troisième mandat bi daf koy jël tegee ko lële donc loolu c'est une occasion historique pour yéen ñi ngeen profité ci parce que loo xam ne benn yoon lañ la may sañ-sañ nga nga addu ci pendant cinq ans juróomi at mais mais sa benn yoon boobu war nga xool naka nga koy defee quoi donc c'est pourquoi mu bëggoon gis nga façon sabotage bu nekk def na c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu gis élection yi ñuy organiser nawet kenn mosu ko gis le 31 juillet kenn xamul lan mooy am mën nañ yeewu mu am orage di taw pour mu gaaw président dina ñëw léegi sur son projet de législature bi nga xam ne mu ngi ko actionné de benn package boo xam ne les trois axes yi ci nekk moom dina si ñëw léegi benn bi ginnaaw bu ñu sante yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa maa ngi nuyu mbokk yi nekk lay yëpp maa ngi nuyu mbokk yi nekk lay yëpp di tàmbali ci nuyoo sama waajur wu tedd mi toog di Adja Ndeye Mbow maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm. waaw dëgg la sax dañu war a toog ma jàkkaarloo ak ñoom. jàkkaarloo ak ñoom nga taxaw xëy sama ginnaaw. waaw ngir dama bëgg waxante ak moom. moom ci taxawaayam ci sama wet. ci jàpp bi nga ma jàpp. lu ma ne rek yaa ngi ci. lu ma ne yaa ngi ci. coalition bi fan yee sax dégg ngeen ne am na jaxas jaxasoo du ci am. lenn dong moo ko mooy am nañu ci ne daal di bëggoon ma dàqaleeg bu naa ma ma wax ne su amee naka laay def ci sama kanamu waajur bii di waajuram konta ne ma kon nag jot na ma jël décision ndax kenn du ma tàqale samay mbokk kenn lii ay jéego la Abdourahmane Diaw mën naa seede li ma wax ma su fekkee ne amoo da ngeen am ay désaccord ak Bounama mënatuma am compagnonnage ak yéen ndax kenn du ma tax waaw lii mooy li ko indi mooy da ngeen laal loo xamante ne kenn du ko laal ci barke mooy samay mbokk pas-pas moom sama mbokki pas-pas la waxatuma deret bi sax bi ñu béyee mais mbokki pas-pas la ndax ndeysaan dama ko wax benn bis ne ko lii de waru laa metti mu ne ma déet man su ma nekkee ci lii yow rek sa mbégte rek waaye loolu nag loolu nag euh, kéwul du tëb doom di bët wallahi azim sa sa taxawaay dama koy wax waxaat ko waxaat ko sonorisation bi pour campagne bi la waaye nag dootuma tànqal kenn ci réew mi dinaa ko jël bàyyi ko ak jumaa ji xaw ma woon ne sax mbedd mi nii lay mel pour man damay ñëw yéeg ca kaw rek juróomi nit daal di ma fekk foofu waaye bett nga mais bett nga ñu bettu mbégte euh, barke bi ma dafa am benn waaye bu ma wax ne ma vraiment ce discours bi am na solo mais soo bëggoon gën a am jàmm ci réew mi mënoon nga rek éviter di tudd troisième mandat bi ma ne ko d'accord du ma ko tuddati démb ma dem Mbàkke tudd ko fa te dañ koy tere ci réew mi dañ koy tere ci réew mi président Macky Sall def na xam nga nguur dafa neex def na fukki at ak quelques weer xam naa tàmbali calculer li des fukki weer juróom moo des foo def fukki weer na bëri fa bagage soo bëggee am jàmm dangay da ngay teel a commencé takk say bagage ndax sénégalais yi duñ la mayaat benn fan de plus ci réew léegi nag jarul xuloo jarul xeex jarul bu gëdd ndax def na fi dix ans war fi defaat deux ans yu mujjee yi li dese mooy accompagner ko mu dem ndànk mais au soir du juillet 2022 le président Macky Sall doit recevoir un signal fort mooy signal boo xamante ne mooy nekk président à partir de vingt heures nga xam ne il sera seul au palais dans son bureau mu yëg ne yi nee nañu loolu mooy premier signal bi ko suñ ko ko envoyé ba pare nag daldi dem nag ci liggéey bu mag bii di ñu ci réew mi moom de tëj na ma fukki weer ak ñett amul procès la ca yéeme dañ ma dugaloon ci benn néeg séparé ma ak prisonniers yi ba noppi interdire ma promenade ma koy muñ yàlla bi ma génnee li ma njëkk def mooy yebal Bounama mii Malick Sow Malick Sène pardon ak Modou Mbow ut fukki laadum ak benn ne dem leen mayal ma ko ndax teg bi ma tëjoon ne jégal naa ko. لله الملك قل اللهم ملك الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء innaka ala kulli shay'in qadir mais li ci am solo pour nga dégg aaya bi il faut nga dem ca aaya ba ca topp nga dégg ko diggante ni mu dugalee luy dund ak luy luy dee lu ko génne ak ah, waaw ba ko jur hayya minal mayyit loolu nag mbokk yi mooy wane nekk bisu 31 juillet sunu boroom mooy décider ki war a am ndam suñu ko amee sant nañu suñu ko ñàkkee sant nañu suñu borom li amul solo rek mooy wan ko suñu pas-pas bi ñu am ci suñu réew am nañu ko fi may daanelee Adja Ndeye Coumba Wade moom lay tijjee moom lay daanelee te te wax dëgg yàlla cofeel gu ma ëmbal am naa bu ne mel waaye su ma demaatee ba toogaat ba xalaataat bi mu bi ma ëmbal rokki na loolu bi ma ko ëmbal moom ak njabootam wax dëgg yàlla te nag sama yaay yi toog mën nañu ko seede Fatou Bàcci léegi ñi toog mën na ko seede sama sœur maman Sow danaa baax nga xamante ne keroog point de presse bi lay sax am taxawaay bu wéy ci ñun te kat yàlla def na ginnaaw bu ma amul sama benn mbokk bu ma imposé pour nga jox ma carte d'identité bi ma wax loolu ci parrainage man maa wax bu ma ma ne ko sa yaay amul choix ci ñun mais sama mbokk yi duma ci kenn carte d'identité di sonal kenn parce que xëy na ànduñu ak man xëy na mën naa ne te duma sonal kenn ci loolu tey jii mbokki pas-pas yi ma am ci réew mi deux mille kilomètres la def nit ñi fu ne la ñu jóge fu ne la wax te su so su neexee yàlla rek le 31 juillet ñu am majorité assemblée maa ngi koy dox nag di ko wax te te te gëm naa gëm naa li ñu nekkee waaw yàlla rek moo mën bi ci des nag mbokk yi jigéen ñi lañ ko jagleel un projet qui va révolutionner les conditions de vie de la femme au Sénégal en particulier muy la banque des femmes dafa am benn loi bu ñu voté assemblée sur le waqf le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde deux mille milliards de dollars mooy tourné autour de ce fonds mais la loi a été mal rédigée à l'assemblée nationale ñu ngi ko voté en 2015 suñ jëlee amee majorité à l'assemblée dañuy dañu koy tëggaat cinq cent quatre-vingts milliards de francs CFA injecté ko ci banque bi ci benn département bu ñu tuddee allo Soxna May allo Soxna May mooy dimbali jigéen ñi nar a nekk ci réew mi numéro vert ngay composé un 6 1 6 jokkoog Soxna May nga wax li nga bëgg a def ci réew mi mu encadré la accompagner la ba sa projet lu yàqu sa ci formation bu wér bis bu muy ñëw pour financer la à partir de 5 millions jëm kaw lay doon. bis boobu dangay am mbégte ba doon nalaw su ñëwee ci yow su ñëwee ci yow ba financé la ba dem yow say mbokk kenn du nalaw ndax mbégte waaw waaye dafa am leneen lu ci nax mooy su la fekkee ngay nàmpal dafay jël en charge xale bi ngay nàmpal ci meew ndax dañuy nekk ba Touba muy togg reer di ñu yónnee foofu yamul foofu mama mama sawa ngi nii sama sœur ak juma yu bëri bëri laa la wax mu toggal ma lu mel ne mbanar ci cere yónnee ma kër du benn du ñaar du ñett du ñeent mënumaa mënumaa rombit sant Ousmane mii ma jàkkaarloo bu daa ma boole sant sant yaayam ci taxawaayam sama soldat la waaw sama soldat la bëgg ma yemale wu ma ak leen projet Soxna Mbaye bi na ma ma ci pour kuy dem yóbbaale incha allahu taala lu mën a ne la ci réew mi loolu mooy benn ñaareelu projet bi mooy le TGV train à grande vitesse boo xamante ni dangay ngay jógee Saint-Louis dix mu fekk la Tivaouane nga ndékki tisbaar nga jullee Touba takkusaan nga jullee Medina Baye gée nga jullee ko Ziguinchor su la neexee su neexee nga fanaan soo yeewoo jëlaat TGV bi ndekkee ji Saint-Louis benn waay nag nee na ma il ne faut pas rêver ma wax ko sax li bindkat bu mag ba waxoon ne que le rêve est permis loolu mooy dëgg waaye yemul foofu nag ce projet dañu ko war a réaliser au Sénégal rapidement pour deux raisons la première mooy France États-Unis Allemagne ak yeneen dëkk puissance yi nekk ci adduna bi am nañu am amuñu gaz am ñu pétrole ñu ngi fëgg jamono ji buntu Sénégal bu am ko muy benn beneen bi suñu koy financé du ñu laal xaalisu Sénégal ñaari ñaari anam lañu ko nar a financé maa ngi leen di nuyu ci t-shirt yi ak waaw ndeysaan sama jarbaat yi waaw sama ak sama jarbaat sama jarbaat man de Pounda Boye daa mel daa mel ni falu naa ba noppi de ndax nag lu lu jigéen ne rek ne dama dama gën wallaahi incha allah léegi nag le TGV laa wax ñu ko dara financé ñaari anam la walaay daa ne lay wax waaw waaw xam nga sax bëgg naa la wax dama am gerte rek mais sama si neex na nag. ñuy xaar fële ca HLM mooy TGV bi ma leen di wax ñaar lañ benn bi mooy Medina la conférence internationale virtuelle sur la vie et l'œuvre de Cheikh Al Islam 400 millions de dollars la xalif bi connecté en moins de 24 heures su toogee ci ordinateur bi am nañu xalaat beneen la visite du musée virtuel de Cheikh Ahmad Bamba à Touba xale bi fi mu toog tiim ordinateur am en moins de vingt quatre heures dafay collecter deux cent millions de dollars nekk cent milliards les trois cent milliards vont servir de fonds de garantie pour démarrer ce grand projet de TGV en Afrique pour révolutionner le train au oh, en Afrique incha allah. maa ngi leen di sant nag di leen gërëm. di leen topp di daje eh, le 31 juillet incha allah su yàlla mayee ndam ci naataange askan wi incha allah dinaa dellusiwaat fii di célébrer suñu victoire